xam nga loolu moom rasu la rek. Euh, article 37 constitution Sénégal. Mhm. mooy ndeyu charte réew mhm. dafa wax ne le président de la république nouvellement élu. Mhm. day def déclaration de patrimoine. mu teg ci naan conseil constitutionnel da rendre public. kon déclaration de patrimoine boobu elle est destinée au public. parce que moo tax conseil constitutionnel am obligation rendre ko public. bokkut ak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 boobu on évalué woon nañu perte bi ci à cinquante milliards yoo xamante ne daf ko jox ay entreprises yoo xamante ne fraude fiscale la ñu leen jàpp woon nga yaakaar ne loolu daf ko def pour euh, pour pour pour les beaux yeux de ces entreprises là ñëpp xam nañu ne am na fu ñu doon jaar xëy na moom en a la loolu nag bu ko jéemu leer na wax Sénégalais sama alal ñu la ko ñu ci la ñi nga xamante ne ils sont la prétention jiite réew mi te mën a bëgg a prévaloir d'une honnêteté et d'une probité ñoom dañu war a nekk dans une maison de verre wax ne nii laa am ñëpp xam ne li ñu am nii méngoo ak seen at yi def ci liggéey mhm. ndax fonctionnaire bu la ne milliard laa yore te fekk ne moom fonction ay emploi fonction publique rek monsieur la ko sa yore mhm. kooku xamal ne alal réew moom def nañu def na ci lu nekk si du moom léegi nag si bu amul lenn lu muy nëb na wane lu mu yore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 budget bu toll ni 7000 milliards jox leen ma seen gaz ma géré ko ba pare bëggloo wax fi nga jaar ak réew mi ci li nga jot a yor ak ni ñu surtout ku doon liggéey ci xaalis. wallaay kay na. doy kay ne ko ñeme mbir mi rek. waaw na ko ñeme de. waaw walla de. jeex na